aar sa bopp aar ñi la jege fagaroo gaan faju digle yi nan ko jëfe aar sa bopp voilà salaamaaleykum waa Dalifort waa Sénégal yëpp laa bëgg a wax sax maa leen di nuyu man euh, maire Idrissa Diallo di ñëw euh, waxtaan ak yéen si li nga xam ne temps yi moom la ñëpp di waxtaanee maanaam euh, distribution vivre yi nga xam ne nguur gi moo ko war a joxe état bi moo koy joxe vivre yi nag ñëwagul maanaam ceeb bu ñuy wax dulin bi saabu suukar def naa yooyu la ak Euh, macaroni ñëwagul mais liñ si wax yëpp euh, noonu lañu ko war a doxale ndax ñun décidé wuñu état bi moo koy joxe état bi dafa am document yi ñuy yónni nga xam ne ministère euh, du développement communautaire et l'égalité et de l'équité sociale def na noonu la ministère bi tudd ministère baa ngi ni document bi la ñu yónnee nga xam ne mu jaaralee ko si gouverneur jaar si préfet jaar si sous préfet sous préfet ñëw réunion ak ñun envoyé ñu ay arrêté li si nekk li nga xam ne loolu la war a ko doxalee mu ngi si document bi mooy terme de référence yi fii la ñuy expliquer lan la d' euh, ndimbal bi lan la nan lañ ko war a joxe te joxe bi aussi dañu ne xam nañ dañu war a jox d' abord dañu ne euh, registre national euh, unique mooy RNU bi loolu mooy fichier boo xam ne nguur gi daf ko yore mooy ñu yore ñu ñuy am bourse familiale ak ñi nga xam ne dañu yore carte d' égalité ñoom ñoo nekk si boobu ñoo juróom téeméer lañu yokkal ñu nag yeneen junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn muy 1856 total bi yëpp nekk 2556 moom la ñu war a sëddale si gox bi am na ñi nga xam ne xam nañ leen ba pare am na ñi xam ne leen war a tànn li ma bëgg a wax comité bu réunion mairie bi fu mu toll nii dafa loolu dafa tudd comité communal avant moom loolu fii la nekk matrice yaa ngi ni responsabilité comité bu nekk nguur gi moo ko bind nee na comité régional xool leen gouverneur la ak ñi fay nekk yëpp seen tur yaa ngi nii ay fonction la lii moo fay nekk tey jamonoy corona lañu nekk ay salle de réunion def plus de douze personnes kenn du dañ ko tere d'abord donc lii lii war a def comité régional moo nekk nii départemental bi topp si ah si nguur gi la jóge si état bi la jógee sous préfet moo ñu ko jox départemental mu ngi fii arrondissement mooy mu sous préfet bi yore topp si ak mairie yi yore dama bëgg ak quartier yi comité de quartier yi nga xam ne dañoo war a tegal yi seen élu yaa nii les députés les hauts conseillers des collectivités territoriales ak communal baa ngi nii le maire commune ainsi de ak li war a topp ci quartier yi donc lii ay tour la nga xam ne dañ ko bind ba pare jóge ci autorité bi wax ñu nag ci y a des personnes nécessaires dañ ko def mais waruñu dépasser douze personnes tamit il faut que nit ñi xam ne lii séddale bi tànn bi ci quartier yi lay nekk mairie bi fii dafa war a séddale quota yi mille huit cent et quelques séddale ko ci quartier yi mooy ñun suñu rôle maa si siy sant nag ñëpp ñu siy liggéey comme honorable ba euh, kii nu mu tudd euh, député Awaña am na ci droit de statutairement war na bokk comme maire war na mën a bokk comme euh, conseil national de la jeunesse di bokk comme responsable des familles di bokk comme yeneen kii OCB e yi nga xam ne leen cité fii. donc liggéey boobu la ñu commencé dañuy xool ménage na parce que liggéey du liggéey bu yomb il faut ñu xool ay nit lañu ñu ne dañ koy séddale net net mais liñ si bëgg mooy. li nga xam ne war na mën a jaar yoon dinañ fekk suñu kente lay kattan yàlla dimbali ñu ñu bañ a juum juumte yi nga xam ne day rëy parce que suñu la waxee junni ak juróom-ñett yi nga séddale ko si ay quartier quartier yi tolloowuñu euh, nu mu seti euh, tolloowuñu si euh, yaatuwaay si maanaam si nombre de ay kër yu fa nekk tolloowuñu aussi si njël yi nekk si biir kër yi tolloowuñu aussi si am-am yi loolu pour liggéey si loo def rek dañu naan baaxul mais ñu dañu ne puisque li si nekk dafa bëri nit ñi ay fukki nit lañ ñun suñ comité bi imam mu ngi si curé mu ngi si délégué de quartier président délégué de quartier bajenu gox yi euh, responsable du conseil national enfin de la jeunesse ñoom ñëpp ñu ngi si biir ak président commission comme ni nga ko gisee action sociale u mairie bi donc ñun ku nekk vraiment su indi xalaatam ñun ñëpp bokkuñu kër bokkuñu euh, kuréel yi ñuy yëngatu donc defe naa euh, lu jub rek lañ si bëgg ñee suñu tànnee ba pare dañ koy indiwaat ñu xool su dee am na li nga xam ne nit ñu d'accord ko si quartier yi ñun war nañ si wax suñu kii su dee juboo ñu aussi sous préfet ñëw atte dama bëgg mu leer li du ay li nga xam ne day ñëw maire day jox ki wala du jox kii maire joxewul commission bi moo xam ne man ak honorable ak président imam ak président délégué de quartier ak curé bi ak euh, présidente bajenu gox fu ñu bokk ñun ñu tànn dañuy def quota naan quartier bi nang nangam lay am tànn bi nag comité de quartier bi mu ngi nii comité villageois ou de quartier ñi fay nekk ñi fa a nekk ñi ngi ni seen tur yaa ngi ni seen fonction yi du moins du délégué de quartier amul tànn du tànn kenn ñii arrêté moo xam ne maa koy signé moo leen fay dugal moom su ko jotee day liir ne diw anamu ñu ne lii kii moo ñu représenté tel quartier kii moo ñu représenté fii kii moo ñu représenté donc da xel yi dal li fi nekk ministère la jógee wàcc si gouverneur dem si préfet ñëw si sous préfet ñëw si maire man ñeme moo de leneen li nga xam ne nguur gi waxu ko li ñuy wax ni ñu ko defee noonu noonu lañ koy defee ba mu egg si quartier quartier nag def seen ciblage ciblage mooy maanaam ñu tànn yaakaar ni kii de yelloo na ko yaakaar rek lañ si am suñ ko indee pare ñun ñu jox ñu ko ñoom suñu pare ñun ñun ñu jëbal ko sous préfet mu jëbal ko préfet jëbal ko gouverneur mu dem ba si ministère yi xam ne nii lañ ko séddalee dal di si kontaanul aussi vraiment da nga ko balaa muy jógee fee commission bi am nañu confiance si ñi nga xam ne dañu fee ñëw ba jour bu ñuy wane leneen donc moo taxoon tey ma ne woon il faut ñu waxtaan ba coow bi bañ a bëre ah, euh, séddale ndimbal la vraiment suñu sañ ñëpp ak si am. donc li ma si yokk dañu ne lii suñ ko joxee ñaari junni euh, presque ñetti junni nga xam ne manqué na ay juróomi téeméeri nit ah, ménage ñoo koy am. Dalifort nag am nañ euh, juróom-ñaari junni ménage juróom-ñaari sept mille et quelques ménages. bii deux mille cent rek la donc ñëpp mënuñu si am dañu xam ne nag fu mu yem rek vraiment ah peut-être seen wërsëg la wala tànn bi mën na la demee mairie nag day joxe aussi am na lu ñu ville de Pikine aussi may donc day ak mairie li mu jënd ñu xool aussi na la ñuy def ba parce que mairie moom li muy joxe du tolloo ak li jóge si état bi donc dañuy xool aussi luy si jeexee ñi jaar si ginnaaw ñi nga xam ne amuñu woon ñu jéem a jox ñu waxuñu aussi ko ñëpp la ñuy jox ah, mais nañ fexe aussi ba mu mat ay junniy junni aussi su dee man ñëpp mën nañ si am muy noonu te dina ma jaaxal parce que vraiment euh, su ma ne damay joxe fii euh, euh, junni juróomi junni famille loolu moom mairie bi defe naa attanu ko donc li ñu mën rek li ñu si def suñu kentam lay kettan vraiment suñu doole bi yëpp dañ ko si def pour que ku nekk daal ah nga xam ne aussi mënul tolloo mënul tolloo ak li nguur gi di joxe mais bi li muy joxe vraiment dañuy xam ne rek suñu doolee fa la toll mais suñu sañoon ñëpp am ko donc solidarité lañ nekk duñu ne kii fii lay dem ñi ñu am fii waruñu am si beneen côté bi waxuñu aussi que ñëppay am mais ni mu mën a avancer mais vraiment même su dee day am ñoo xam ne amuñu bu mu bëree noonu donc loo mu bëgg a vraiment waa Dalifort yi ñëpp xam ni yëf yi euh, yëfu ñëpp la waaw tey yàlla man a damay koy wax chaque fois nit ñi yàlla moo am lépp waa joxuñ joxul ñëpp moo am na lépp moom mën na jox ñëpp te du ko déranger te defu ko bon nit aussi suy joxe su dee ñëpp mën nañ am dinañ am su dee amuñu aussi vraiment dama bañ affaire liggéey bi commencé wul sax ñi commencé joxoñ kii di commencé joxoñ ñun mairie commission bu fii réunion dafa war a tas quota yi luy war a dem si quartier quartier bu ne bu nekk nag ñu ne la lii ngay am quartier bi commission yi fa nekk bu kenn dem bindu chef de quartier chef de quartier amul droit bind nit ñi man maay def arrêté mu jot ko ñu ne ko yow yaay président commission diw mooy président lii diw ak diw ak diw ay tuur a fay nag ay tuuru fonction fii ma liiral leen ko mu leer ah chef de village ou de quartier directeur d'école OCB imam curé euh, nu siti euh, comité de santé association de parents d'élèves bajenu gox relais communautaire ak dolli nañ si conseil municipal ak su amee yenn façon élu ci quartier yi donc loolu il faut mu leer délégué bi su bindee responsabilité am la jël te warul def réunion avec plus de douze personnes loolu aussi corona bi moo moo ko teree donc vraiment nañu comprendre ñu ànd ak tey ñu ànd ak dal ñu xaar ñu déglu leen ñoom aussi si quartier bi su dee gis ngeen li nga xam ne d' accord leen def leen groupe ngeen laaj président ngeen laaj délégué de quartier ne ko ñun de xalaat nañ li ak lii ak lii lépp si waxtaan la mën na juum mu nangul leen ni juum na waaw après ñu jéem a rectifier ñoom tamit si biir commission bi su dee jubóo ñu ñoom suñ ñëwee fii ñun ñu jéem fexe bi nit ñi jubóo jubóo si euh, benn liste loolu laa bëgg ñu def ko parce que lii euh, c' est ñëpp bëgg nañ si am mais ma ne est-ce que ñaar yoon lañ koy joxe benn yoon la ñetti yoon la benn yoon lañ koy joxe si suñu xam-xam mairie bi de moom dooleem benn yoon rek la mën a joxe donc lii xam nga dundalul kenn nag. dañuy dimbale nag ndimbal ñëpp a ko soxla fu mu toll nii bëggoon nañ ne vraiment ñi si war a jot yëpp jaar yoon en tout cas loolu lañ ñaan suñu borom mu dimbale ñu nag xelal ñu euh, gunge ñu pour que ñi ko war a jot jot ko si anam yu leer nga xam ne vraiment du am problème mais nag xam nga ay mbindeef lañu muy ñun muy ñu koy jot matuñu léeg nag moom am erreur. loolu aussi foo faut ñu def ko la part de l'erreur en tout cas man sama sañ-sañ ak ñi ma nag àndaloon si comité bi dëmb ñëpp engagé nañu dañu bëgg affaire leer mais puisque ñoom séddalewuñu tànnuñu vraiment mënuñu seen engagement boobu amul noonu solo boobu ñu nekk si comité de quartier yi ñoom ñoo war a tànn ñoo war a fexe ba suba ñu bañ leen joxoñ naal ne li nga def nii du yoon loolu aussi damay appel lay wax képp ku nekk si comité de quartier dañ la fa teg pour du teguñu la fa pour sa bopp ak sa waa kër dañ la teg pour askan wi su ñàkk di am yaay njëkk a ñàkk loolu aussi il faut nit ñi dugal ko seen bopp loolu laa bëggoon vraiment euh, ñaax ñëpp ku nekk góorgóorlu ah situation crise lañ nekk ku nekk góorlu nit ñi ah, gën a bay xel si feebar bi aussi lii ba ñu distraire ba ñuy def li nga xam ne euh, feebar bi àndul ak feebar bi feebar bi daal moo tax lii yëpp jóg nañu bay xel aussi si feebar boobu ñuy wax coronavirus leen sant leen gërëm di leen euh, ñaanal vraiment ñu dugg si koor gi si jàmm Ah, ñu génn si jàmm parce que mu ngi ñëw di ñaan euh, euh, mbokk yëpp muy waa Dalifort yëpp yëpp yëpp ak Sénégal ak àdduna bi yëpp yàlla dimbale ñu jëlee ji fii feebar bi moo xam ne vraiment moo ñu sonal feebar bi daal nu mu gën a gaawee euh, nu mu mën a gën a gaaw jógee si àddina bi def naa moo arrangé àddina bi yëpp ndax àddina bi yëpp tiital fu mu toll nii di leen sant leen gërëm.